fu ne mu dugg fa ngir gendarme de Dakar mbëggee da daan toog réunion mbëggee da daan toog de classement bu ne dañuy classé diw mu ne ah seet leen ki ngeen di classé mbëggee da daan dax taxaw tableau GIA waaw tableau gendarme mbëggee da ci daan taxaw donc mbëggee xam na gendarme maa ngi leen koy wax léegi mbëggee sunu demi-finale ñu ak Linguère. en 72 Mbaye Guèye ak Moussa Yoro Camara Kamu ak Guitambert ñoo gagné match bi ñoom ñoo gagné match bi ñoom Mbaye xam na man xam naa dan daan toog stade gis nga keroog bi ma Mor Nguer di padd mànga Mbaye Guèye mi-temps la seetaan Gia Jaraaf fa doon football keroog keroog Gia moo dóor 2-0 Mbaye première mi-temps la toog stade couverte ca fond ba ca seen groupe ba. ba nu mi temps la ne maa ngi dem munu woon ba a ñëw xool GA parce que dafa bokk ci préparation bi ba lépp pare daga daan ñëw entraînement fa ngay fekk mbéygéey yi day am combat te mbéygéey c'est un grand sportif mbéygéey c'est un grand sportif mbéygéey GA maan la y a des jours du jaraaf yoo xam ne mbéygéey leen doon entraîné. Léopold Diop moo koy entraîné. ñëw na ni ma. danuy football ak jaraaf. Mm-hmm. mais man sama entraînement bi ma entraîné physique yëpp. mbéygéey ma ko entraîné. ma ne ko Mbaye Gueye pourquoi mu lay entraîné mu ne ma Mbaye Gueye sportif la lii ngeen def yéen waa GA lii ngeen def yéen waa GA du yéen rek ko war a def ah? kuy sportif ci senegal war ngaa ñëw taxaw bisu Mbaye Gueye bu Mbaye amee feebar nii toog sportif yëpp ñoo ko war a sargal yàlla na la yàlla may wér yal na la yàlla yëkkati. nit ku baax nga nit ku sportif la li àllaaji pàkk kii mooy mémoire Fass bu muru Fass di bëre bu ñu gisul Mbaye xel du daal mais il suffit ñu gis Mbaye ci ginnaaw rek même deful dara na toog rek xel day dal noonu nga mel ci gendarme mel ko ci sportu Sénégal yàlla dina la ko fay yéen waa GIA nag nii ngeen mën a mel la gendarme de Dakar ah, lu ne war ngeen ko mën a am jamono moo yàqu rek adduna yàqu ñu jaxase club bi jaxase équipe bi waaye yéen lu baax lu ne def ngeen ko bër xam na kan mooy mbay Gueye kamu damay taxaw kamu taxaw naa ak moom mu may wax ci Mbaye Gueye mu ne ma ñun Mbaye Gueye ñun bu nuy football mbay Gueye du nelaw mais xanaa xamu ne ñun it bu Mbaye Gueye di bëri ñun du nelaw ñun du nelaw dem naa match Demba Diop fekk gendarme Dakar nekk regroupement Coupe d'Afrique en 75 74 74 Sega Sakho Mbaye Gueye di bëri ak Double Less bi Papa Dieng mii di nettali ñu daan Mbaye Gueye Sega Sakho ni du dugg ci kaaru GA. gitambee da ko dab waaw waa jërëjëf ñu jërëjëf dañuy yeggale rek ah Mbaye Sega Sakho ni du dugg du ci kaaru GA day ñibbi gitambee da ko dab ci buntu bi ni ko Sega foo jëm du yaa ngi ci kaar bi doon mu ne nga non non Mbaye Gueye daan du ma dem regroupement ndax bëgg gu Sega Sakho Sega Sakho bu Mbaye di bëree du seetaan day ñëw ba mbéy gay tuus ba dara desu arbitre baa ngi sifflé mu dem toog ca ginnaaw kii sax da ko ko doon defal mu tafaa géy mii ah moo tax tafaa tamit ñu koy gërëm mbéy géey mbéy wax naa ko léegi mbéy du magam baay te noonu la jàppe mbéy géey lii ngeen defal mbéy du mbéy géey dafa amul taxaw mbéy am na taxaw laajul kenn dara ay mbokkam a ngi ci ay mbokkam ay xaritam ñëpp a ngi ni kooku ku ko xool xam ni am na taxaw li El Hadj Papa wax nag dëgg la kii ku feebar mel nii sa soxna ci la. jabaram ci la ah. nan ko ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal diggante ma mbéy yàlla na ko yàlla rafetal. ci barke yonent bi ah soxna si nag yaayu. mbéy géey ndax mooy yaayu Ibra kon xam naa ni du ñàkk bu waa gendarme defee li ñuy def ba pare ndaxte ñuy fàttali rek waa gendarme indi nañu teraanga ñu ngi koy jox mbéy géey comité directeur indi na nañu teraanga. ñu ngi koy jox mbéy gi waaw. kon joxe nañu enveloppe boo xamante ne nii waa gendark ñoo ko joxe ak comité supporter ku ci nekk joxe nga teraanga googu xam ne mu ngi nii ñu ngi koy teg. li ñuy wax ci noonu xam maa ngi xam Adja. waaw kon kon mi ngi noonu waaw. yaayu Mbaye Guèye la wax ah yaayu Ibba Kan maire Fat Sena ah, Ibba yaayu Ibra Mbaye xaar seen yaay booy gis nga ah. lii waa Jeanne def di kóllëre defal ko sa doom sa xarit sa wéttal Mbaye Guèye ñoom lay sant di leen ñaanal yàlla di leen gërëm ndax gis nga kii bu ko duubalee di daas siise la moo doonoon sëriñam di jaay duubal lees <laughs> waaw mu fekk sama kër muy nekk supp mu ne ma foo jëlee kii ma ko day laaj tey mbokkam mu ne kii dama ko yóbbu ndax ma def ko boxeur loolu nga wax de ndeke bi mu ko yóbbu Cissé ngi ci kër gi tubitoo mu ne ko damay déplacé mbay gay ne ko loolu na xari mi ngi nii toog maa ngi mu ne ko dara dama loo xam ne bala ma koo def dem Casamance maa ma déplacé waaye ba mu ko defee jikkoo ñaari weer la ci am dee kii na yaayam ba ma bataleeg moom ma dem ñibbi day julli timis fa mu sëgg fa ko yàlla moomee barke alxuraan ak kaaba gi ma jógee nee na ma teraanga koy tënji barke alxuraan barke Kaaba ga ma joge te mu wan ma ko nag xam nga lu dej dëj dëjaayam bii moo ko tey ne sama kër ajaa ngi nii aji nag dama lay ñaanal yàlla yow li nga ma bay yàlla ci sëriñ Tuubaa teg loxo aji yaa ma sagal ba may jaay sa yaay ñoom kilo bi fan weer booba du tey bañ ma laajee la ma waxoon defal nga ma ko yàlla na la sëriñ Tuubaa jàppale dowoo daayoo sooqi woo jàmbatoo jooyoo Babacar mii di togg di fóot bañ tuddoo ko Fatou Gueye jambaal saar la ca jëkk a dóor Fatou Gueye la tuddoon ndax déggal ndeyam hmm. Fatou Gueye turu jigéen la. waaw di ñëfe nag ba tudd titre de face. amaat leen ko jëkk a tëggal làmb te ki jóge ci équipe bu Birame Dia ñoom yëpp jàmm nga am ak ñoom hmm. ba ñu dëddu àddina moom moom moom kii tubaabu joor ba ci biraay bi nii mbay gàcce ngaalaama man day yaay sama wét te tey sa yaay waxoon dina am di nga jóg nee na yal na la teraanga téye mu yoroon nag ay nijaayam Ah, bu ni jaayam Abdou Ndiaye yor guyte ak mbalu ñuy ñaari jabaram mu yor ab rapide bu demee ñaari fan gaare mu yor ay rakkam suñ nee waa bu ba seetee oto bi gaare indi tuusmaa mbay sax njobootale tee am ay étage waaye am nga ko lii dong ci doon wax ma salaam li ma yaakaar naa ne mbay waaw mu jox ko mayo bi voilà ñu jox Pape Mbengue Aziz Pape Mbengue xam nga ku ne Pape Mbengue ni Gia ku ne Gia ni Pape mu nekk sa ci kër te juddoo ci GIA ñun ñëpp coono yi ñu daj ci GIA mënuñu ko expliquer GIA bu daan euh, football day suñu ko dee mel ni làmb comme mbéy bëre bëree dinañu dëbb ay cours dinañ taal ay fourneau tout ce qui est mystique fële ko mbéy daan defee. et da doon nekk nag tous les dimanches ou tous les samedis moo ko li ñu doon defal ci GIA ci affaire mystique mbéy moo ëppoon moo def moom yi bëri ndax moom peut-être année bi dina ci bëri trois fois mais GIA da doon jouer tous les dimanches donc ñun gimmi màggi ci kanam gendarme ràññee woon ñëpp nag ñi ci gënoon ràññee sax peut-être ñu ci bari dëdd nañu mbéy nga daan def géorgien bu xaw a jël âge tuuti bu retraité mbaa performanto muy la nga football nawetaan ñun ñëpp Alpha Touré bi muy football ñun fi tànk lañu Alpha Touré dem na bu revenir di jël et ci ci mbéy nga nawetaan ñoom Flavio Flavio boobu kii moo ko dugal ci avion bu ko France ak autant d' autres personnes yoo xamante ne jaar nañ ci mbéygéey yi aujourd'hui euh, ñu nekk ci beneen monde donc nag euh, kii jëm ji monument la ah <laughs> monument la ñun aussi nag wax dëgg yàlla métier bi ñu am moom moo ñu ko transmettre bu ne sama papa la wax ju leer la tax dañ ne ah, boo jàngee métier moo ko jàngal sa métier bàyyi métier bàyyi mu mu jariñ la dañoo topp ay tracé nag ba nëgë ni nii donc nag lu ci def rek dañ leen di remercier gërëm leen sant leen et mënuñu yëkkati kàddu naan on n'a pas besoin non moom soxla na sax seen présence yéen même bu lu côté financier soxla na gis leen sànq xaw na fee tur ronkoñ te moom bu turee ronkoñ ñëpp dañuy tur ronkoñ noonu la mel nag il est émotif keroog bu fi association des sages de la lutte ñëwee fi la nekk di jooy ba gars yi ñoom Biraay mag ñoom Ibou Ndafaak ñi àndoon ñëpp te di fii di jooy xam nga donc Iba euh, tout bu mu commencé rek Pape ñeen koy commencé bloqué pour mu pour mu bañ fa mais noonu la mel dans sa vie normale sax su waxtaan xóotee ba neex dafay génn ay ronko ñoom donc nag vraiment yéen kóllëre yi ngeen def ak Mbaye nii njabootu Mbaye Guèye yëpp dinañ ko dégg ki mag ci kër Mbaye Guèye ba ki ci gën a néew nañ ko dégg ndax li jekk na rafet na Mbaye Guèye GIA nii la woon am loon différence footballeur GIA yi bu ñu saan football bu tasee liy gën a gaaw mooy ñëw xalaat xool si combat Mbaye ah ñu ràññee ci woon Sega Sakho bu baax sax moom na dañ ko ràññee moom moom bëgg nañu chimie ak ñoom Kona man ñoom Séraphin la ñu woon tous ces anciens là ba barki démb rek Pape Ndiaye ki la woo nekk états bu tudd Bakary je sais pas daf ma woo man dama génération diw laa woon moom Baba Touré ñoo ak Koto. expliqué ma yooyu génération boobu laa. bi ma la doon nettali Bakary moo moo dugal deuxième bi. damaa dégg affaire bi di woote. pour def sama participation. macha ah, allah yi ci ëpp solo daal mooy lii. ñëw ku feebar da nga ko assister. ngeen ko indi seen nga joxe ci turu association sportive culturelle bu Jeanne d'Arc donc ñun Jeanne d'Arc dañ koy ñaanal mu revenir ci temps yi nga xamante ne daf ñu doon faire rêver. yi fi jaar yëpp nag jaar jaar na te yaam ci yaam fépp ci àddina yàlla na ko yàlla teggi mu jël siwaat bokk ci ñi xamante ne dañuy défendre les couleurs sénégalais kon boog leen gërëm leen sant ginnaaw bi Papa Dieng waxee sax war ma koon teg baat mais damaa jóg rek daal di ci daal di dugg ah kon boog salaamaaleykum wa rahmatulaay gërëm ñëpp ñu ngi lay gërëm Ibakan ma aussi kuy sonn ci mbéygéey la même en temps de paix normal su ma jotee ak moom téléphone ki bañ di ko laaj mbéygéey jaar naa fa naa fa kooku sama papa la donc moo ko fekkee tey jii nekkul lu ma bett ah. jabaram mbéy ji nag duñ ko gërëm dañ ko ñaanal njabootam yàlla teg ci loxo ba ñu mun ko féete foo xam ne téléphone mbéy gi mës di féete waaw. maître xaar seen moom ñëpp ci ci la lañ juddoo li fi jaar bari na mënuñ ko expliquer xaaj Bekaay ñu ngi gërëm yow yow kenn du la gërëm ci mbéy gi ñaar da ngeen bokk def lépp man te damaa juddu fekk naan borom costume bi kan la moom ak Mbassa Mbassa sax moom mujjee ñëw papa Lamine Samba moom mi costume la am sol toog tegale tànk yi le matin de très bonne heure huit heures suñu béykat yi di bëree ba bu bu ñoom béykat yu baa ngi dem làmb gi lay dem yoonam vraiment ñooñu ñëpp dañu leen ràññee suñu kanam ni ma xamee mbéy nii ràññee ko di ci kanam noonu laa ràññee Papa Dieng mii ak ñeen ñoo xamante ne dañu ànd dañu ànd ak ñoom donc histoire bi ñu ko fii dee téye du fi jege ba suba ah gërëm nañ ñëpp sant ñëpp ah visage yëpp nag xamee nañ leen ah vraiment Pape Mbengue ñu ngi lay remercier ah ndax mbéy nga tam ku moom te li ngay wax ci GIA rek li ko dal ci li ko dal mbéy nga ci GIA moo ko ci dal ak ne suuf bu ko jal te gis ngeen ne quand même euh, équipe fi am ku fi am doole rek am nga mbooloo ci sa mu Moustapha Gueye dong mun fi nekk ñu doon mbër grand champion déedéet ginnaaw gi woon na lool dëgër lool dis lool macha allah loolu yëpp nag jëmm ji toog la ñu ñaan ko yàlla may ko ton delloo ko suñu biir ba mu commencé toog ay loolu lañ soxla ci moom jërë ngeen jëf. léegi ñu ngi koy jox mayo bi waaye Pape mbeng Pape Mbengue Pape Mbengue il faut mu. Robert Mbaye Guèye seen premier combat Demba Diop te Mbaye Guèye daan ko. arbitre ba ni dafa sifflé. Habib pitax bi Mbaye Guèye pitax bi Robert sànni <laughs> duma wax ban jour la mais benn jour <laughs> ci tànkam la daanu moo ko récupéré. falan ko naje ci tribune bi pita ba naawul benn jour jia bu mag jamono jooju moo récupéré picc ba te boobu Robert xam mu ñëwee rek sànni pitax bi xam nga ndaanaan la waa mën a bëri mais bëri bu doyoon waar mbéygéey ba muy bëri ji dafa feebar dem bëri ji ci combat boobu waaw salaamaaleykum waaw gannaaw ba ma sante yàlla julli si yenente bi di sant samay ñaari waajur di sant sama sëriñ sëriñ Babacar si donc tey teewaay bi euh, teewaay boo xam ne buggeewuñu ko woon nii parce que kii toog nii sama papa la lépp lu ma bind Mbaye Guèye si mille articles mun naa wax les quatre-vingt pour cent si Mbaye Guèye laa ko bind donc bi ma yëgee affaire bi ñu wax ma ko benn guddi benn waay woo ma ni ma yëg nga ne sa vieux bi dafa malaat ma ne ko noo yëgu ma ko guddi gi woogu mënumaa nelaw dama yeewu suba teel woote jot soxnaam bii toog mu expliqué mu ne ma waaw loolu ñu la wax noonu la ma ne ko nag man mënumaa may Mbaye Gueye ay milliards mënuma kaa may ay millions mais si sama bind même boo ma ko joxul yow feu man dinaa bind ba waa Sénégal yëpp yëg ko képp ku mënul woon dimbali mbay dimbali ko si bu muy dund ma ne ko man loolu man maa jël décision boobu dinaa ko def man madama ma ngi nii toog ma yeewu bind article bi moo tax tey bu ñëpp ñëwee jàpp si vraiment Euh, dama dama si am contentement Mbaye Gueye nag commandewul il ne tend pas la parce que il n'a jamais tendu la main il n'a jamais tendu dafa am fierté dafa am orgueil donc man li may def rek mooy ñaanal ko yàlla tax tax bu mu jóg ba doxaat soxlaam di gërëm bu baax soxnaam si toog di ko gërëm bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal soxna si lépp li ngay def si mbay yàlla na la ko sa njaboot fay yàlla na ko sa njaboot fay ba nga fekkee ko donc man daal loolu laa am lu ma si wax di remercier Mbaye Gueye Tafa Gueye bi toog saa yu ma woote ñu ne Tafa moo ngi fi saa yu ma woote Tafa ngi euh, si si si wetam di taxaw donc loolu rek la ñuy xaar si Moustapha Gueye di gërëm Bekaay Mbaye miy toog parce que bi ma ko waxee moom tamit il a été tellement surpris ba ne moom loolu du il faut mu fekkee ko. mais ndaw. ñoo daje. donc tey bu Mbaye bu Bekaay Mbaye toogee. Mhm. ak Mbaye Gueye rek la woon amu mu woon leneen Jeanne d'Arc Mbaye ak Ndiaga mbay waaw di gërëm na tamit euh, Papa Dieng bi toog suñu doyen di gërëm waa Jeanne de Dakar bu baax a baax a baax si geste bu ngeen def tey lii waa CNG waroon nañu fi jiitu ñëw toog def lii mais waa Jeanne de Dakar ñoo njëkk def lii donc loolu dañu leen si remercier bu baax a baax a baax di leen ñaanal club bi retrouver ses lettres de noblesse parce que c'est pas pour rien ñu ne tuddee ko la vieille dame